dikkati na ñoo ngi topp politique bi bay fàtte ni des na tuuti door duñu amati fees wéer suñu ndigg ndax tong-tong goo xam ne ñi ngi ko dëkkeeg sunu suuf tribune yéen kaay ne ma kaay génn tong-tong ngi mi ngi am nag ci bande de filaawo yi nga xam ne moo am ci ndakaaru bi le tong-tong nag mi ngi soxal juróom ñetti millions ñaari téeméer ak juróom benn fukki junni mètre carré yoo xam ne nguuru Sénégal da koo déclassé ba nuppi lu toll ci ñetti junni juróomi téeméer ci njaboot daal di koy séddoo woon jëndoon suuf soosee seeni xaalis yéen kaay bi naan maan waa cité Chérif Abdoulaye Thiaw laay ca Malika tey jii moom lañuy foqar ñee suuf ci seen loxo jël suuf si nag bëgg koo ci xat ci xatee ci anam woo xam ne jaarul yoon moom Abdoulaye Seydou Sow ak yenn ci kàngam yu APR ñu daal di leen ci joxoñ baaraam ak tuuma ci loolee yéen kaay bi naan man benn pàcc ci suuf soosee dañu koo jël daal di koy sedd ne ñu équipe nationale bu football waxtu wa nga xam ne waa cité ba ñoo nga yoree seeni loxo rangoo ci seenu bopp di daal di jooy libaas jaan ci collectif bi ne moo ne day ñoom daje nañoo président de la république Macky Sall moom Sall ngaari lam buur géde waataloon ne leen suuf si dina delluwaat ci loxol ña xam ne ñoo ko moom di seeni boroom tey jii nag suuf si mi ngi ci loxol ñeneen ñoom ñi defoon seen xaalis te suuf sa daal di nar a ñàkk fa yallaaxu ci mu ñoo xam ne dañ leen ëpp doole ëpp leeni xaatim ëpp leeni cachet waa collectif bi naan ay ata ngi nii ñu def tekk kenn waxul coow li fa mu nara a mujjee moom moo di ca mbedd mala njaboot yëpp nar a génn fas yéene nag jàkkaarloog président de la république ci télévision yeeg rajo yi wax ak moom ci mu delloo leen la nga xam ni moom moo di seen am-am yéeni kaayib des daal dina waa réew nan la fi ndaw yi di toogee réew moo xam ne daanaka yaa yaakaar goo fi teg mu daal di yankeeku ñoom ndaw yi amatunu yaakaar stress di bëgg faat yooyu le ndaw tay jii lan nga mën a wax mu dugg seen nopp ba duñu jël gaal gi dem màngaani l'évidence yéene kaay naan man en tout cas discours Bougane Gueye Dany bi mu def ni ki barki démb ci étudiant yu CEFAS yi day mënees na leen a motiver ñu daal di toog le mandat yéene kaay naan leen ma nga naan leen ci bénévolat laa doore laataa tey jii ma daal di taxaw xam ne mënal naa sama bop te mën naa demal sama bopp bu ñu jaaree ci njàng meeg njàngale mi ñoŋal ko jox xale seen gëdd ci réew mi nañoo tabax réew mi daar daar vox populi naan kon en tout cas wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndaa daali faw jël la am présidentielle 2024 yi moom acté nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février dees na xam na kan mooy jiite réewum Sénégal daal ñuy dugg ci élection présidentielle yi l'observateur naan kon Youssou Ndour moom élection présidentielle yi nee na bàyyi na vox populi naan maan Khalifa Ababacar Sall gannaaw Fatick ñu téye convent ba ca Matam waa kër Cheikh Modou Kara naan la ñuy àndal ci élection yi l'enquête quotidien naan kon coow li mooy diggante Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko ak Karim Meïssa Wade daanaka seen xeex yi ñoo niroo waaye tam ëttu attekaay bu kawe ba ñu daal di mujjee ñoo ko daal di niroole rabat dare amoon na ci Karim amoon na ci Khalifa Babacar Sall am na ci Ousmane Sonko confirmation yu pen yi am na ci ñett ñi rejet de pourvoi am na ci yéeni kaay bi naan man lii day wane ni ëttu attekaay bi gën a kawe moom daanaka jallax opposition bi la fi nekkee la daloon Khalifa Babacar Sall ak ñoom dal Karim Meïssa Wade ak ñoom lii nag moo dal Ousmane Sonko ak ñoom la voix nga xam ne ka Ousmane Sonko def nañ ko mbaa lii nag nekkul loo xam ne daanaka nguur gi ci la daal di jafandu ngir fas yéene faagaagal Ousmane Sonko ndax nag ba ñu ko defee ca Karim Meïssa Wade gars yi dañ koo patam patamee daal di koy atte ndax bee ñi ngi doon waaji élection lan moo tax nag ci Ousmane Sonko loolu amul yéen kaay bi naan man booba ñu ngi tiiti jaamaarloo daal di ko yóbbu ci tribunal d'instance bu Ndakaaru ngir mu atte ko te loolee à tout maam mën na andil jiixi jaaxa Ousmane Sonko yéen kaay bi naan maan juriste bii nee na coow li moom moo di di xëccoo la nga xam ni moom la juge Sabassy Faye def dootul combat bi combat bi kay mooy Ousmane Sonko mii ñu ne ab contumace la te jàpp ko tey jii tàbbal ci kaso bi loolee daal di tebbi lépp loo xam ne ab contumace la nekkoon ci ndoddam lii la xeex bi war a soobu niki tey ndax nag loo ci man ci dégg Ismaïla Madior Fall la mu wax dub droit manoo ne nit ki ab contumace la ba pare waxtu woow ma nga cab kaso coow li nag moom moo di attaqué boobu la dogal lii nag moo mën a tax Ousmane Sonko daal di génn ci guuta nga xam ne nekk na ci sursoit ma xamal ne fi mu ne Benno Bokk Yaakaar a nga mel ni sabar gu bu parti socialiste ma ngay dal ci kaw waa Benno Bokk Yaakaar ya nekk ca Daara di leen xamal ne fukki junniy parrain yu teg yi nga xam ne nee ñu am nañ ko lii dey balaa ñu koo gëm nañ ko vérifier ba noppi ndax du dëgg waxtu waw Dakar Times di ma xamal ne Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Thiès boo maytul mën na fa am jafe-jafe ànd fal Amadou Ba taxawal nañ ko Malay Diop président ba daal di xam le ni en tout cas booloo dey buñ ko deful ñoom mouvance présidentielle bii mënees nañoo am ay jafe ndax sa Thiès Idrissa Seck ma nga fa Babacar Diop ma nga fa Thierno Alassane Sall ma nga fa Alioune Sarr ma nga fa Agibou Soumaré ma nga fa te ñooñee fas nañu yéen a jàmmaarloo ak Amadou Ba te duñ ci daw dara ma lay naan kon coow li coow li mooy fexe ba ñu fal la ndax bés bu ñu la falee di nga doon président boo xam ne dina ibbiwaat Sénégal gu yees ci wàlluk émergence waaye tam Sénégal goo xam ne dees na ko juboole ak boppam laas yéen kaay nan kon ca diwaanu Pikine gaa yaa ngay charmer Amadou Ba nu ne maire bu jidee caaroy kaw Mamadou Gueye ma nga jaar ne di sàkku nag ab poste de santé bu mag boo xam ne mënees naa tax ab dëkkam daal di faju waaye tam ab commissariat boo xam ne dina tax am yéen kaay bi naan man terewul fukki million jox na ko poste de santé yi taal lamp yi daal di jooyanti tàggat yaram Isaaxa Diop daal di sàllar ñi koo fële jébbale ab record ci wàllu parrainage Amadou Ba jébbalit ñaari téeméer fukk ak juróomi million soxna yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Pikine ci ab cérémonie boo xam na fa sargal président Macky Sall waaye tam xool fa ab pexe ak yoon yoo xam ni des na falaat Amadou Ba fii ak 2024 laas yéen kaay nan man en tout cas fal googee société civile day ña ngay xool nees tëggee élection yi ba mu jaar yoon ba nuppi kon en tout cas waa assises nationales yi ña ngay xool nees def nag ba tëggin wi daal di jaaraat yoon pend mbaw daal dina dooleeg sañ-sañ yi nga xam ne président de la république téye na ko tey ci loxoom war naa mën a tax nag ñu jëfee la nga xam ne moom lañ tënkoon ca assises ya Moussa Mbaye ne ñi nga xam ne ñooy soobu ci élection présidentielle yi ñoo ko war a jëfee Mamadou Lamine Loum ne jalog rek tànk dialogue ñu politique moom dañ koy dégg rek waaye ci xiiroo ngaayoo lay daal di mujjee Mamadou ne suñu bañee liñ dundoon ci réew mi ñu dundaat ko muy jafe ci langu politique gi nañu booloo sunu